conseil sénégalais des chargeurs moo leen di may seen de presse dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyanto yéenekaay gii di réew mi quotidien ñu réew yóbbu ñu sa réewum Guinée Conakry nee na Cellou Dalein Diallo gagné na élection yi nga xam ne moom la ñu doon amal ci réewum Guinée dimanche bi nga xam ne moom la ñu génn niki démb la Cellou Dalein Diallo def ab déclaration wax ne gagné na yi daal di nag wax askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ca Guinée ne ñoom daat nañu koy ama union des forces démocratiques bi nga xam ne sunu dalee jàll moo ko jiite ñoom nag dañoo njort ne Alpha ak ñi mu àndal dañoo bëgg a sàcc seen victoire bi maanaam dañoo bëgg a li nga xam ne mooy élection yi moo tax sunu dalee jàll jamono ji ma ngi wax askanu Guinée gi yëpp ñu génn daal taxaw daal di xool seeni bët yéen kaay gi nee na sunu dalee jàll dafa wax ne du xaar waa conseil constitutionnel du xaar tamit kuréel gi nga xam ne moo yor élection yi ci Guinée ndax mi dafa leer nañ ñi lu du ko jeexa Fodé Ousou Fofana mi nga xam ne wàllu campagne Cellou Dalein Diallo nee na yi leer gañe gu leer nañ ñi ci premier tour la Cellou Dalein Diallo gañe li nga xam ne mooy élection yi niki démb nag ay manifestation amoon na ndax ñi nga xam ne ñoo ànd ak Cellou Dalein Diallo démb dañu doon feete ñoom nee nañu maanaam seen victoire am na si ñett ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan nee nañu takk der ñoo leen joxar bi ay bal loole nag union i kaay gii di Vox Populi nee na a ko def maanaam ñoo ngi koy sax di ko dànkaafu exclusif yéen kay nee na wax ji leer na si lu ne lay jàllu dafa dóor Alpha Condé mu wàcc gañe gu leer nañ la ko gañe yéen kay gii di laas nee na en tout cas lii raam sa ñag ba la jëm te bu fa amee kër du baax li nga xam ne mooy xeeñ Guinée Conakry maanaam neexul musiba mabba kumba njortu nañ ne maanaam bu ñu deful doucement rek dina fa am yéen kay gii di la turbine nee na en tout cas daal mbooleem tendance yi nga xam ne génne nañ ko si lu ne lay jàllu moo raw Alpha Condé nee na si lu ne lay jàllu dal na ci Dakar Times xëy di wax ne Alpha Condé Condé mii nga xam ne ñu bare njort nañ dañ koo gagné dafa bëgg a ngoy ci réewum Guinée Conakry yéen a kaay gi di enquête xëy yóbbu ñu réewum Côte d'Ivoire nee na réew moomee moom soo muytuwul si tàkk la jëm xam nga ko d'Ivoire tàkkoon na fi waaye ñaareelu tàkku sa la ndax am na ay manifestation yu bëri yoo xam ne am na fa am na sax ay bus yoo xam ne dañu ko taal yéen a kaay gi de la témoin delloo si ñu ci réew mi ki fi nekkoon njiitu réew mi di Abdoulaye Wade mer na ba maara taal yi ndax na fan yi ñu génn lancement bi nga xam ne waa PDS ñoo ngi ko doon def ci lu jëm ci njaayum carte dafa am ay ndaw yoo xam xam ne ñoo fa ñëw andi fa ay pëccëxu yàq permanence PDS loole nag dañoo defal Abdoulaye Wade ab rapport moo tax Abdoulaye Wade mer na ba maara day taali waaye nag mer na lool Baara Gaye ndax dañoo njort ne ay ndaw Baara Gaye ñoo andi ak pëccëxoo ci lancement bi nga xam ne PDS doon nañu ko def yéene kaay gi nee na Abdoulaye Wade sax dàquta porte plainte Sud Quotidien nee na ab parti politique ma ngi nii maanaam ci tas tasar la jëm muy parti socialiste réew mi Quotidien na nag déclaration bi nga xamante ni Serigne Mbaye Thiam def na ko loole am na lu bari lu muy niru yéene kaay Anne mi nga xam ne moom lañ dénk njàng mu kawe mi moom nag daat nay dalal ñi nga xam ne ñooy doog am bac nee na leen dalal leen seen xel ci lu jëm ci wàllum orientation gi dinañu leen orienté ci université publique yi Aline Dumburu Sow ak Girawale kàddu yu doy waar yi nga xam ne yëkkati woon na ko fi yéenekaay gi di critique nee na Moustapha Niass ba léegi nii dafa ne pata pataaral mbir ma maanaam di tëx tëxlu yéenekaay gi de la témoin nee na maire bu Mbambilor dañu ko tuumal na dafa def ab détournement ab njublang boo xam ne tollu na ci quatre-vingts millions réew mi quotidien ñu fekk fa Mamadou Dione directeur di conseil sénégalais des chargeurs maanaam COJEC daan nay wax ne Sénégal jafe-jafe yi nga xam ne am na ko ci lu jëm ci wàllum koom te Covid 19 bi te ko ko Sénégal bu si bëggee gaaw a génn teel see génn loola maanaam na dooleel mbay mi yéen a kaay gi di enquête wax na ci immigration clandestine maanaam ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi di jaar ci géej gi nee na nag li ko waral bëri na ci ay ndaw yoo xam ne amatuñu yaakaar ci réew mi ndax da ngay nekk xale bu góor ne wëndang ci ak kër doo xëy doo gont yéen a kaay gi di Vox Populi nee na am na sénégalais boo xam ne rey nañu ko sa Paris moo tax askan wi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci déndu Afrique yépp nee nañu danañu marche ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ca Paris la France yéen a kaay gi de Libération nee na sëyub góor jigéen boo xam ne dañu ko doon amal sa mère Moussa ña ko doon def police teg na leen loxo L'Observateur nee na tey jii la ñu leen di defeere Vox Populi nee na toll nañ ci ñaar fukk ak juróom yéen a kaay gi de Les Échos nee na fan yi ñu génn sa Touba dafa am benn góor jigéen xam ne dañu ko doon dóora loolee nag tax kuréel gi nga xam ne moo ëmb góor jigéen yi nekk ci àdduna bi fas yéene nañoo yóbbu Serigne Modou Lo Ngabou fa mbaxana doone doonee benn maanaam ci kanamu union européenne ba pare jokkoo nañu si ak ministre de l'intérieur yéen a kaay gi de stade nee na ligue des champions tey jii la première journée bi Paris Saint-Germain dina dalal Manchester United Chelsea di dalal Séville yéen a kaay gi de l'observateur nee na Gaston Mbengue yóbbu na Gris Bordeaux gendarmerie ndax dafa tëggoon combat Gris ak Balla Gaye 2 Gris Bordeaux bëreewut ba pare joxu ko xaalisam yéen a kaay gi sunu làmb ñu fekk fa Abbas Ndoy mi nga xam ne moo jiite écurie Fass daan nay wax ne Gris Bordeaux dañu koo tooña daan nay wax sax ne Gris Bordeaux ak